ñeneen ñi nga xamante ni mën ña làkk arab kon ku làkk arab ba pare te dégg ko jëru jàng téere bi ñu mënul eh, tudd baatu arab yi ñooñ lay jàngal ku taalif téere bi nag mooy docteur Abdourahim moo taalif durusul xotil arabiya moom nag ñetti xaaj la ñett ñetti juz juz bu juzul awal bi nag lañ nekk mooy xaaj bu njëkk bi ak darsul awal darsu bu njëkk bi haza mooy firi lii wala cii haza nag mooy juñu jege danañ jàng juñu lu sori ci kanam haza bu fekkee lu amul xel la danga naan lii bu fekkee ku am xel na nag kii ngay wax haza lii baytul kër la kër amul xel moo tax mu ne lii kon soo waxee soo bëggee wax lii kër la danga naan haza baytun lii kër la hada lii masjidun jàkka la soo bëgg a lii jàkka la nga ne hada masjidun lii jàkka la hada lii baabun buntu la soo bëgg a wax lii buntu la nga ne hada baabun lii buntu la hada lii kitaabun téere la soo bëgg a wax lii téere la nga ne hada kitaabun lii téere la hada lii qalamun big la soo bëgg a wax lii big la nga ne hada qalamun lii big la hada lii miftaahun caabi la soo bëgg a wax lii caabi la nga ne hada miftaahun lii caabi la hada lii maktabun taabul la maktab nag day firi bureau day firi taabul mais fii nii taabul lañ koy tudd hada maktabun lii taabul la hada lii sarirun lalla soo bëgg a wax lii lalla nga ne hada sarirun lii lalla hada lii kursiyun sees la soo bëgg a wax lii sees la nga ne hada kursiyun lii sees la kon hada bu ah, amul xel fekkee lu amul xel la te soo bëgg a comme kër nga ne nga bëgg a wax lii kër da nga naan haada baytun soo koy firi toolam doo wax kii kii kër la dee ndax amul xel nga naan lii kër la kon kër nu ñu koy waxee si arab mooy baytun jàkka masjidun buntu baabun téere kitaabun ah, big xolamun caabi miftahun taabul maktabun lal sariirun sees kursiyun boo si bëgg wax nag boo si bëgg wax lii

hada baytu ndax lii kër la naam hada lii baytun kër la dana lii lal la nga ne ko lii kër la mu ne hada baytun ndax kër la soo kon hada soo si yokkee a dafay dafay sikki sàkk xamul daa gis kër gi mu yaakaar ko jàkk mu yaakaar ko leneen kon soo bëggee wax ndax lii kër da nga naan a hada baytun mooy lii kër la bu fekkee kër la nga ne naam naam mooy firi waaw naam waaw hada baytun lii kër mu ne maa hada lii lan la hada lii xamisun semis la kon yére nuñ koy ah, arab mooy xamisun a hada sarirun ndax lii lan la laa déedéet hada lii kursiyun sees la kon bu fekkee dara laaj fekkee du noonu ah, la laaj danga naan laa man ngaa wax laa kese noo soo bëggee mu gën kaa nga bëgg kaa gën a leeral lii bi nag pour mu xam ko nga ne laa déedéet haza kursi comme dana ko ah, haza sayru ndax lii lal comme du lal laa la tontu mënoon naa wax laa déedéet kese nag mais daa xam ne siis la mu bëgg kaa xamal mu ne haza kursi lii siis la ah, haza miftaahu ndax lii caabi la laa déedéet haza lii qalamun big la kon laa mooy firi déedéet naam mooy firi waaw maa haada lii lan la haada lii najmun biddiw la tamrin awal jimun dul jëkk bi lii dessin yi nii ñu dessin waxoon nañ la ko ci première page bi yëpp tegoon nañ ko ci première page bi kon suñu suñ la laajee yaa koy tontu soo tourné première page bi sax da nga bu nekk limite bi jàngaloon nañu maa haada lii lan la caabi Ah, caabi ni ñu koy waxee si arab wax ma haza lii lan la téere waxal lii téere la ma haza lii lan la big waxal lii big la ma haza lii lan la waxal lii bunt la ma haza lii lan la waxal lii téere ah, lii ah, kër la ma haza lii lan la waxal lii siège kon yaay tontu yooyu tamrinu saani jimatu ñaareel bi haza baytu ndax lii kër la lii da dana laaj ndax lii kër la dessin bi nii bu fekkee du kër la nga waaw nga naam nga wax waaw xaasa baytun bu fekkee du kër nag nga wax déedéet déedéet waxoon nañ ni nga koy waxee naam wax nañ a xaasa miftaahu ndax lii caabi la tontal xaasa xamiisu ndax lii semis la xaasa najumun ndax lii biddiw la tamriinu saalisa jiimantu bu ñetteel bi fi jàngal waxtu bi da nga bind xaasa lii مكتب table هذا لي مسجد jàkka la هذا لي قلم bic la هذا لي سرير lal la ما هذا لي lal la هذا لي kursi chaise la هذا بيت naqli kër la laa déedéet laa déedéet هذا لي مسجد jàkka la la هذا لي مفتاح caabi bi mu ne ñi dugg sena si ku am xel fekkee ku amul xel la kon su mahaza suñ ko waxee mooy day laaj xamante ne amul xel mooy lii lal ngay wax boobu maa maa lañ koy jëfandikoo maa soo bëggee wax loolu danga gis loo xam ne amul xel nga bëgg kaa laajte maa nga si dugal maa lii mooy lii lal bu fekkee ki nga xamante ne dafa am xel comme nit yooyu danga naan man nga si yokk man hada mooy kii kan la hada fekkee ko waxoon naa la kii nga yow fekkee loo amul xel lii mais bu fekkee bu fekkee li nga xamante ni amul kell soo koy laajte da nga naan maa nga ci yow bu fekkee li nga xamante ni am xel nag soo koy laajte naan man hada man nga ci yow mooy firi kii kan mu ne man hada kii kan la kii kon doo wax lii kii tabibun docteur man hada kii kan la hada kii waladun xale man hada kii kan la hada kii taalibun taalibe taalibe bi mooy kii sàkku xam-xam hada waladun nax kii xale la laa déedéet hada kii rajulun góor la mooy mag rek kon nit ku am xel soo koy man nga ci yokk man hada doo waaye soo waxee man hada doo wax lii la danga naan kii kan mu ne maa haada lii lan la haada lii masjidu jàkka la man haada kii kan la kii taajirun commerçant haada lii kalbun xale kon doo kii na amul xel xaj moo tax lii ngay wax a haada kalbun lii xaj laa déedéet haada lii xittun muus mu ne haada lii ximaarun mbaam la haada ximaarun lii mbaam laa déedéet haada lii xisaanun fas la wa ma haza ak lii lan la haza lii jamalun gëlëm la comme su laajtee benn question ba pare bëgg saa tëgaat beneen danga danga siy boole waa waa waa mooy wa ma haza ak lii lan la lii jamalun gëlëm la jamal nag mooy gëlëm gu góor naaqatun mooy gëlëm gu jigéen mais ma haza lii lan la haza lii diikun séq la mooy ginaar gu góor su fekkee ginnaaw jigéen nag dajaaja nga man haza kii kan la kii mudarrisun jàngalakat la a haza xamisun lii semis laa dee haza lii min diilun mustuwaar mu ne tamrin jéemantul iqra jàngal waxtu ta nga bind ma lii lan la haza lii qalamun big la lii kalbun xaj man haza kii kan la haza kii tabibun docteur la haza lii haza kii haza lii jamalun gëlëm la haza kalbu nax li xaj la laa déedéet haza lii xittin mus la haza diiku nax lii ginaar góor la naam waaw su la kon su comme su la laajee dara soo neexee fekkee noonu la soo neexee soo na ko naam mën ngaa wax naam kese noonu soo neexee mën nga xaa gën a leeral nga naam haza diikut هذا حصان نقلي فصل لا دير هذا لي حمار بام لا هذا لي منديل مستوار لا هذا ولد نح كي قلل نعم واو man hada kii kal la hada kii rajul góor la kon loolu mooy darsu bu njëkk bi darsu bu njëkk bi ne daanaka hada lay jàngale luy aajo sooy laajte ak sooy laajte lu amul xel ak sooy sooy giñu am xel loo xamante laajte yoo yooyu wax naa la haza fekkee lu am xel lu amul xel la da naan lii fekkee ku am xel nag kii ngay wax bu fekkee da ngay laajte ku am xel man nga ci yokk man haza bu fekkee lu amul xel maa kon tey ñëw ci juñu sori darsu saani darsu mooy zalika zalika nag mooy juñu lu mooy lële maa lal la kon zalika comme haza rek mën ngaa wax fekkee ko amul lu am xel lu amul xel danga naan lële lan la bu fekkee bu fekkee ko am xel la moom danga naan kële kal ah, kële kële zalika ma zalika mooy lële lan la zalika lële najum biddi lu amul xel moo tax nga lële lan kon bu fekkee zalika bu fekkee ko am xel la danga naan kële haza lii masjidun jàkka la wa daalika ak lële baytun kër la haza lii xisaanun fas la wa daalika ak lële ximaaru mbaam la a daalika kalbun nax lële xaj la laa déedéet daalika lële xittun muus la maa daalika lële lan la daalika lële sariirun lan la man haza kii kan la wa man daalika ak kële kan la هذا كي مدرس جعلك الله وذلك كلب إمام إمام ما ذلك للا للا ذلك للا حجر خير لو رنغن دجل هذا لي سكر سكر وذلك للا لبن صولة تمرين لجيمن تلو اقرأ جعلك وقت بتنبين هذا lii sukarun sukar la wa zalika kële labanu soow la mun zalika kële kal la zalika kële imaamun imaam la a zalika xittun nag lële la laa déedéet zalika lële kalbun xal la ma haada la la haada lii xajarun xeer la xajarun day firi doj day firi xeer kon soo fekkee zalika lu amul xel loolu ngay wax bu fekkee da nga saa dugal laajte di laaj lu amul xel maa nga si yow comme comme hasard comme ngay laaj imaam bi mu ne ak këleka man nga si yow wax lu sori kon zalika mooy junñi lu sori mu ne alkalimatul jadidatu baati bees yi imaamun mooy firi njiit imaam xajarul xeer sukkarun sukkar labanun soow darsu saalisa darsu ñetteel baytun mooy firi kër al baytu mooy firi kër gii xam soo waxee baytun boobaa day firi soo waxee baytun kese noonu bi boobaa kër yëpp mën na saa dugg xamuñ ban kër ñëw mën naa nekk bii mën naa nekk bële mais soo ne al baytu mooy firi kër ñëpp xam nañ kër gooy wax mooy kër gii kon baytun mooy firi kër albaytu mooy kër gi kon soo bëggee kër gi dañ ci yokk alif ak mais soo ci yokkee alif ak laam nag doo ko maas ah doo ko maas ñaari maas benn rek nga ngay def albaytu mais fekkee amul ah, ah, alif ak laam bu waa soo amee alif ak laam nga ne muy firi kër gi baytun kër albaytu kër gi xolamun big alxolamu big bii kitaabun téere alkitaabu téere bi jamalun gëlëm aljamalu gëlëm gi alqalamu big bi nag suur lañ dàmb la kon su waxoon xala ah, kese boobaa kenn xamu benn big la mais dana alqalamu mooy firi big bi nag suur lañ dàmb la bunt bi maftuhu nañ ubbi la alwaladu xale bii jaalisun aji toog la wal mudarrisu jàngalekat bi waaqifun aji taxaw la kon jaalisun mooy ko toog waaqifun bi mooy ko taxaw al kitaabu téere bi jadidun aji bees la big bi xadimun aji màgget la mooy aji yàgg la al himaaru mbaam mi saxirun aji ndaw la wal xisaanu fas wi kabirun aji rëy la Ah, almindi yu mustuwaar bi wasiqun aji tilim la u ndox bi baaridun aj sedd la mu ne alqamaru weer wi jamilun rafet la albaytu kër gi xaribun aji jege la wal masjidu jàkka ji baidun aji sori la mooy contraire mu ne alxajaru ah, doj bi saxiirun aji diis la wal waraqu xob bi wala waraq day firi xob day firi fëy xafiifun aji oyof la allabanu soow bi xaarun aji tàng la alxamiisu semis bi naziifun aji set la sàng nag li leen wax haza ak zalika yooyu noonu yëpp haza gi haza yi leen wax noonu yëpp lool góor moo moom kon bu fekkee jigéen la hazi yi lañuy wax waaye loolu danañ ko jàng ci kanam zalika tamit ah, jigéen sooy wax jigéen lële soo bëggee wax juñ lu jigéen tilka ngay wax yooyu danañ ko jàng ci kanam mu ne tamarin li jéemantu la yaqara jàngal waktub ta nga bind ma dabt awaaxir kalima ànd ak maas mujj baati waxoon nañ leen baat si alif ak laam ah, benn maas lañ koy maas su fekkee ah, danga kaa wax noonu kese comme baytu boo ñaar maas ngay maas yii nag yaa ngay maas masjid mooy jàkka al masjid jàkka ji yaa maas duma ko maas alma ndox ndox bi ma ndox al bayt kër gi baab bunt xalab bi alxalam bi bi alkalb xaj bi kalb xaj xamis semis walad xale alxaja doj bi wala xeer bi alwalad xale bi ximaar mbaam alximaar mbaam bi alxisaan xisaan fas xisaan fas kon yooyu yaa mas ku nekk su amee alif laa waxoon nañ koy mas su amul wax nañ loolu ko ma mu ne iqra jàngal waxtu ta nga bind ngi jàng ko bind ko almaktabu taabul bi maksuurun luñ dàmb la ko wax naa la maktub day firi taabul day firi bureau mais fii ah, maktab la a jekku la jekku na bureau du dam mu ne almudarrisu jàngalekat bi jadidun aji bees la alxamisu semis bi alxamisu semis bi wasqun aji tilim la allabanu soow bi baaridun aji sedd la almasjidu jàkka ji maftuhun ubbi la alxajaru xeer bi wala doj bi kabirun aji rëy la allabanu soow bi baaridun aji sedd la wal maa o ndox bi xaarun aji tànga mooy contrôle mu ne al imaamu imaam bi jaalisun aji toog la wal mudarrisu jàngalkat bi waaqifun aji taxaw la alqamaru weer bi baidun aji sori la almindiilu mustuwaar bi nadiifun aj set la kon yow yaa nga jàng bind ko nga jàpp baati lii su loo ko joxee daa bëgg pour nga jàpp baati rek im la feesalal alfaraax barab wéeti fii maa yëri si dikk bi waddee kalimatin si teg baat munasibatun bu dëpp moom min kalimat taalee si baat yi dikk bi barab yi wéeti nii yaa yaa si teg baat bu dëpp moom si si baat di ñi jox baat boo gis fii rek am na baat bu dëppoo moom si baat yu si kaw nga jël ko boole leen mu ne jamilun aji rafet wasiqun aji tilim maftuhun luñ ubbi xaarun aji tàng saqilun aji diis xafifun aji oyof kon yooyu noonu am na bu mu dëppoo bii am na yu mu dëppoo fi alxajaru doj wala xeer am na fu am na bu mu dëppoo si si kaw jëlal benn nga bu dëppoo moom nga boole leen albaabu bunt bi am na bu mu dëppoo mu ne weer wi am na bu mu dëppoog fii alwaraqu xob bi wala fooy bi am na bu mu dëppoog fii almindiilu mustuwaar bi am na bu dëppook dëppoog al labanu soow bi am na bu mu dëppoog fii kon yi ci kaw nga jël def ko boole boole ko bu dëppoog bu ci suuf mun a im la feesal alfaraaxe bara bi wédi fi maa yel ci digg bi waddi kalimatin ci teg baar bu naasi ko bu dëppoog moom baat yi ni nekk ci ah, tàmbaliment bi ngay def baat bu dëppoo moom nazifun aji set tegal njëkk moom avant nazifun baat bu dëppoo moom lan moo set mu ne maksurun luñ damm tegal baat bu dëppoo ak moom baridun lu sedd qaribun aji jege baidun aji lu sore waaqifun aji taxaw jaalisun aji toog kabirun aji rëy qadimun aji mm, mm, ah, yàgg jaridun aji jadidun aji bees kon baat yooyu teg si baat bu dëppoo moom pour pour ni xam mu wax mun alkalimaatul jadidatu baati bees yi ñooy baati bees su loolu moom su loolu joxee dars ba pare day génneel baati bees yi nga xamante ni jàngoo ko yi nga xamante ni déggoon ko si dars yi paas alxamaru weer wi nazi al nazif mooy firi weer nazifun aji set kabirun aji rëy xafifun aji woyof jadidun aji bees xaarun aji tàng maftuhun lañ ubbi jamilun aji rafet qadimun aji yàgg wala aji màgget baaridun aji sedd maksurun luñ damb waaqifun aji taxaw wasiqun aji tilim saxirun aji ndaw saqilun aji diis jaalisun aji toog kon yooyu am na baat yooyu ñooy bidiw an najmu mooy firi bidiw bii diikun ginaar ak diiku mooy firi ginaar gi mooy firi siq gi ar rajulun góor ar mooy firi góor gi taalibun taalibe ak taalibu mooy firi taalibe bi mu ne an najmu bidiw bi baidun aji sori la ar rajulu góor gi waaqifun aji taxaw la sukaru sukar bi xulwun aji neex la ak taalibu taalibe bi maridun aji feebar la ak diiku siqi bi jamilun aji rafet la ak daftaru kin aj jadidun aji bees la ak daftaru sunjore al kuraas day firi kin timi ak taajiru commerçant bi ganiyun aji riis la mooy koomal ak dukaanu boutique bi maftuhun luñ ubbi la al waladu xale bi faqiirun aji ñàkk la ak tofaahu bi ladiizun aji neex la attabibu docteur bi tawilun aj njool la wal mariidu ku feebar ki xasirun aji gàtt mu ne tamarin yaay jéemantu la iqra jàngal waxtu ta nga bind ma dabte awaaxiri kalima ànd maas mujj baadi lu la jàngaloon si dars bi mooy jox nii pour nga gën kaa dégg rek gën kaa xam jàngal yi nga maas mujj baati albaab moo firi bunt bi ak taajir commerçant bi ak naj bidiw bi alxamar weer bi ak diik siq bi alma ndox bi asariir lal bi albayt kër gi almasjid jàkka ji arrajul góor gi asukar sugar bi alwaraqu xëy bi kon yooyu yaay maas mujj baat imla feesal alfaraaxa barab weti fii maa yeli si dikk bi waddin kalimatin si ceeg baat munaasibatun bu dëppoog moom barab wetu yi nii yaa ci teg baat bu dëppoog moom ganiyun ajris teyel baat njëkk moom baat bu dëppoog moom maridun aji feebar tawilun aji njool yi sax soo xoolee bu si kaw ni daa mën nga xaatool xëloon aji neex lazizun aji neex xëloon day firi neex lazizun day firi neex mais lazizun si wàllam lekk la daanaka xasirun aji gàtt mu ne ixtar tànnal kalimatu abbaat min qaimatu ba si qaima ba tunasibu bu dëppoog alkalimatu lati baati nga xamante fi qaimatu a alif ñu ngi si qaima alif xaayima xam nga dafa dafa dafa la kaa xaayal xaayima ba am xaayima alif xaayima ba nag si ngay tànn baat bi nga xamante ni dëppoo nag xaayima alif nga boole leen ñoom ñaar nga boole leen mu ne a taalibu taalibe bi al dukaanu boutique bi a tafaahu pom bi al maa ndox bi al hajaru doj bi alxolamu big bi léegi léegi wax nañ xaayima alif ba pare xaayima baa nag la ñuy jël bu si dëppoog moom rek nga boole leen nga jël feres lii leen wala nga boole leen si leen koy gën a xàmmee lazizu mooy fii aja neex maksurun luñ damb saq ilu aji di si yëpp bu si nekk am na bu mu dëppoog fii maftuufun luñ ubbi mu ne maridun aju feebar xaja xaarun aji tàng kon yooyu am na bu dëppoog fii mu ne alkalimaatu jadida bees yi mu ngi lay jox baati bees yi yeneen baati bees xulun mu fi neex aji neex tawilun aji njool maridun aji feebar faqirun aji ñàkk addukaana boutique bi xasirun aji gàtt ganiyun aji riis ak tufaahu pom bi kon yooyu ñooy baati bees yi mu ne al xuruful qamariya xuruful qamariya wala xuruful shamsiya ak xuruful shamsiya qamariya nag suñ ko waxee mooy xaraf yi nga xamante ni ah, suñ koy jàng dañ ñaan al al lañuy wax kon al qamariya comme nu waxee al qamariya noonu ngay xuruful qamariya nag al la ñuy wax duñu wax comme xuruful shamsiya ash la ñuy wax xuruful qamariya al kon xuruful qamariya suñ koy wax duñu wax ash wala yu mel ni xuruful shamsiya nag suñ koy wax tamit duñu wax al as lañ koy jàngee xuruuful xamariya suñ koy jàng al xuruuful xamariya si xuruufu hijaa am na am na yu am na yoo xamante am na yoo xamante ni xuruufu am yoo xamante ni xuruufu nag ñoom 14 leen xuruufu hijaa yi xuruufu en samsiya 14 leen kon xuruufu hijaa yi yëpp en en 28 la Ah, yéen quatorze di xurufu xamariya yeneen quatorze di xurufu chamsiya xuruful xamariya nag moo nekk a alif ba ja ha qa an gha ka ma wa ha ya yooyu ñooy xuruful xamariya soo koy jàng doo wax ash wala doo wax ash al ngay mu lay jox misaal si alif mu alif comme al abbu soo koy jàng doo wax ab doo wax comme doo ko wax xuruf doo ko jàngay ay ash al ngay wax al ab mu mu lay jox misaal si baa ni al baabu doo wax ab baabu déedéet al ngay wax al baabu ja jiimun mu lay jox misaal al jannatu ajana al baabu mooy firi buntu bi al jannatu ajana kon doo al jannatu al ngay wax mu lay jox misaal mu ne al ximaaru mbaam qa ah, mu la si jox misaal mu ne al xubzu mburu bi a ah, mu la si jox misaal al aynu bët bi xa mu la si jox misaal al gadaau añ bi fa mu la si jox misaal al famu gémmiñ gi qa mu la si jox misaal al qamaru weer wi ka mu la si jox misaal mu al kalbu xaj bi ma mu la si jox misaal al maa u ndox bi wa mu la si jox misaal mu ne al waladu xale bi mu la si jox misaal mu ne al hawaa ngelaw li yaa amul si jox misaal mu ne al yaddu loxo bi kon xuruful xamar yi moo xaraf yi nga xamante suñ koy jàng leen xuruful xamar yi xurufu shams xamaru al xamaru xamaru soo koy da nga naan al xamaru doo waa uh, xurufu shams yi soo koy jàngale as shams kon xuruful xamar yaa ngi noonu ñu ñëw xurufu shams mooy yoo xam soo koy jàng as ngay wax xurufu shams yi nag ñoom tamit bu si njëkk mooy ta ta da ra sa sha so do to zo la na yooyu hurufu shamsiya hurufu shamsiya lay joxe misaal ta mu la ci jox misaal ta soo ko soo koy jàng doo wax mu la ci jox misaal mu ne at taajiru doo wax al al taajiru déedéet at taajiru ngay wax da addiiku za az zahabu as sawbu mooy firi yére addiiku firi seex az mooy firi wurus ra ar rajulu góor gi za azzahratu fleur bi sa asamaku jën bi sha ashamsu jant bi so asadru dënd da addayfu gan bi ta ak taalibu taalibe bi za azzahru gannaaw la allahmu yàpp bi na annajmu bidiw bi kon xurufu shamsiya ma xuruf yoo xam ne soo jàng ash nga doo al kon xuruful xamariya ak xuruful shamsiya ak noonu mun a tama tamrin li jéemantu la iqra jàngal kalimatul atiya baat yi dikki jàngal baat nga bind ko muraahiban di aji sàmmwante qawaidu nutqi xuruful xamariya ponk yi tudd xaraf xuruful xamariya wa shamsiya ak xuruful shamsiya nee nga jàng baat yi dikk nga sàmm nga lu la jàngaloon xuruful xamariya ni ñu koy tuddee ak xuruful shamsiya nga tuddee leen noonu a nga wax al al ta nga wax at yooyu nga jàngee comme ni ñu ni ñu jàngee xurufu shamsi xamar yi nga jànge ko ni ñu koy jànge baytun kër léegi baytun kër yokk na si alif laam loolu xool noo koy jànge diikun ginaar noo koy jànge al diiku ngay wax wala looy wax mu darri suñ jàngalekat noo koy xurufu xamar yi wala xurufu jàng al baabun buntu taalibun taalibi sukarun sukar daftarun kin aqun mbokk rasulun yonentu wajhun kanam ah, sadiqun sadiqun xarit qur'anun alqur'an salaatun julli kaabatun kaabaga rasun bopp isbaun baaraam saabuni saabu zufrun weer fajarun fajar zuhrun mooy tusubaar zahalu nag mooy gannaaw asrun takusaan maghribun timis xishaaun gen kon yooyu yaa ngay leeral nga jàng xurufu xamariya ak xurufu samsiya am na nu ñu jàng xurufu xamariya jàngal nañ ko nañ la ko nu ñu jàng nañ kon foofu la ñu yem si darsu tay bi si luxatul arabi si luxatul loolu lañ jotoon andi ci dars bi lu ci jub ci yàlla lu ci dëng ci ngaatu xam-xam la ci néew gëstu in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu